Ndeye Mariam Ndiaye alaykoum mbokk deglu ga ci leen nak jàmm plan Sénégal émergent bi nga xamné nak Macky Sall ak gouvernement ñom ñoko fi taxawal Samir Amin de la mujj gis mom moy dal ni du jëmele réewum Sénégal fenn mom mom nga xamné nak nag bokk na suñu fi taxawal Codes Ria moom moo nekkoon émission objection fi ci biir radio Sud FM tey jii de cuglikaay bi di ci Quotidien mo fësalaat ay kàddoom té Samir Amin dal di ne ya bi jëmele ko nak ci walu plan Sénégal émergent di xamné ne né plan yi ni mel yi nga xamné nak wa Banque mondiale ak tamit wa FMI ñom ñoo fexé nak ba réewum Sénégal dal di ko fi taxawal mom de gëmul nak ne plan gogu dal mën nañ ci sukkandiku ngir fexé ba dal di nak sukkandé réewum Sénégal nee nak plan bobu de bokku li ñëtto ndirowul sax ak li nga xamné ne tay ji dé de buñ ci jaaré dina fexé nak ba réew mi jëm kanam lool nak mom moo ba mom mom di Samir Amin di xamné ne né wa Sénégal war nañu xol ba xam ñen plan lañu wara mëna taxaw ay plan yo xamné nak dinañu mengo ak li nga xamné nak mom mo am fi ci bir réew ngir fexé nak ba dal di koy sukkali wanté kay buñu xor rek rek

Amath Dansokho cukalikaay bi di Le Quotidien mi ngi ñi xamal ni ginnaw cadeau yi nga xam nak mom le ministre d'état bi di Amath Dansokho dal di fësal dafa melni ni de ne waa APR yépp de ñom ñoo tontu jëmele ko nak ci ki nga xam ne de moom mooy Amath Dansokho cukalikaay bi di Le Quotidien ne maître Oumar Youm mi nga xam nak mom mo yoré cadeau gouvernement bi mom mo njëkk fësalay ay cadeau mom na fu mu nekk ni na comprendre comprendrewul ku melni ni Amath Dansokho nekk ministre d'état mom amul ben sens interdit ak ki nga xam nak mom moy Macky Sall lutax nak nag lu mu bëgg wax du ko ko wax mu koy wax nak ñi nga xam ne de ñooñ ñooy taskatu xibaar yi ki nga xam ne de moom mooy maître Oumar Youm ne moom fu mu nekk nii moom kii nga xam ne de moom mooy Amath Dansokho na jël ay responsabilité ndaxte ñoom dootuñu nangooti nag muy fësal ay kàddu yi ni mel ci biir colikay bi jël observateur ki nga xam ne nag moom mooy Yakham Mbaye ak tamit Youssou Touré ak tamit Abdou Mbow ñoom ñett ñëpp fësal nañu seen kàddu jëmale ko nag ci ki nga xam ne de moom mooy Amath Dansokho la ñu ci gis moom mooy daal ne moom li mu wax nii waru ko woon wax double langage lay def maanaam daal dafa mel ni ne day wax lii Macky Sall bu génnee wax leen leneen Youssou Touré la mu gis sax moom mooy ne ay kàddu yu ëpp la te ki nga xam ne nag moom mooy Amath Dansokho waru ko woon fësal Banque de Dakar autolikaay bii di ay action yu bëri Populaire mi ngi ñe ne tey ji nag kii nga xam ne moom mooy jiite banque boobu nag di Vasco Duarte Silva daal dinay seq waxtaan ak Jeune Afrique ñoom nag daal dinay ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne moom la fësal jëmale ko nag ci mbirum Aliou Sall moom moomu di Vasco Duarte Silva daal di ne xamle nag ne Aliou Sall du benn actionnaire ci biir banque boobu tey représenté wu fa kenn ñoom ci seen bopp kay ñoom ñoo ko bëggoon jël sax def ko nag administrateur indépendant ndaxte daal daf leen a jàppale bu baax a baax ngir fexe ba banque de Dakar ñu war kaa mën a samp fi nga xam ne nag moom mooy ci biir réew mi njaboot ca dëkkee fa li nga xam ne nag moom mooy ca xumbe nekk nag fa nga xam ne nag moom mooy ca jamñaajo te ñu bëggoon jël nag seen suuf ñoom nag daal dinañuy jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa IGE ak tamit waa OFNAC autolikay bi di grand place moom moo ñu koy xamal di ñu wax nag ne ñoom seen suuf soosu nga xam ne dañu ko bëggoon nangu ñoom nee nañu nag ba bëgg nañu waa IGE daal di a baax mbir bi di direct info ji di ñu xamal ne daal ñoo ngi ko nemmeeku te ministère de la pêche ndaxte dafa am benn appel d'offre buñ fa am ñu foogoon nag ne kii nga xam ne de moom moo gën a néewle nag ci njëg gi muy laajte ci wàllu appel d'offre boobu moom moo ko war a gagné wante du ni mel nag la sa nemmeeku cuulikaay bii di direct info du ñu xamal ne su fekkente ne nag li ni mel wéy na de gouvernement bu réewum Sénégal dina ci daal di ñàkk ci lu tolloog ñaari milliards cuulikaay bi direct info di joxoñ baaraamu tuuma Oumar Gueye moom mi nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu napp gi fii ci biir réew mi du ñu xamal sax ne moom suñu maytuwulee mën nañu ko dàq